yu wuute yi ci réew mi ak bitim réew yëpp. jërëjëf xam naa euh, dina amoon nañ yéene mhm. Mhm, xam naa sax dina dina gàtt waxtaan yi parce que dañ la fekk ci ay euh, ci xat-xat mais euh, quand li ñu mën a jàpp rek mooy démb naka nga jàngatee discours du président de la bi nga xam ne dafa dal di dàqandi li nga xam ne moo di élection yi. waaw bi ci jiitu rek mooy yàpp askan bi ak aussi tamit ñàkk a nawloo ñi fal ak ñàkk a respecté say waxul démb. yëpp feeñ na ci parce que buñ fàtte ne 2012 ba ñu ruuma nat lu mel ni ci Ablaye Wade ba Aba Somso ñëw fii extra extra euh, moom moo génnoon ne Ablaye Wade du ko may une minute kon ñun sénégalais yi it ñëpp war a taxaw war ko ne ko duñ la may une seconde parce que liñ mayutoon Senghor mayu ko Abdou Diouf mayuñ ko Ablaye Wade buñ demee boo koy may Macky Sall mi ñun la neex ñun sénégalais yi beneen bi ci des mooy sénégalais bu ne yor carte d'identité nationale di yeewoo Sénégal. am nga ak Macky Sall euh, dig booy rek lekk moom boo xam ni fii la ko commencé parce que euh, dafa am loo xam ne dafa ñaaw ci maanaam deru politique waaye dafa ñaaw ci deru Sénégal koo xam ne après indépendance la juddu ñëw teg ñu fitna joo xam ne yàlla mi ñu bindal boppam tegul ñu ko buñ nangoo tegewu fitna jooju yàlla daf ñuy seetaan aussi tamit ci ñu nangoo tegewu fitna jooju parce que yàlla du dimbale ken ko defut effort voilà te lii nag lii ram nag te ñag ba jëm beneen biit mooy lii bettuma parce que président Ousmane Sonko wax nañu lépp a avant muy dem wax nañu xanaa kuy ñàkk a déglu discours am waaye ku déglu kuy discours am bu li ñëwee da naan Ousmane waxoon na ko parce que ne la Sidi Lamine Niass waxoon nit laay waxaat parce que Macky Sall xamul teranga te nit bu xamul teranga daf ne du ay carte ko fiy jëlee la ko fiy jëlee bu dul ay carte nag nañu wax lan la parce que jàmm lañ soxla ci réew mi mais jàmm day fekk ki jiite réew mi bëggal réew mi jàmm bëggal réew mi mooy ñun toxal loowuñ la suñuy élection ñun yaa ñu yéen a ñu indi parrainage ñu wër nit ñi wër ci àll bi uti ay parrainage ba ñëw ba am loolu doyul nit ñu joxe seen consition loolu doyul nit ñi di xaar campagne yow nga am autorité ñëw taxaw ne yow ajandi nga élection yi yow lu sa yoon ci élection yow demoo demaanu suñuy élection lu ci sa yoon ñu dem ñu ñu ñu bëgg a dem. Mhm. Ah, léegi léegi euh, li jaaxal ñëpp it mooy démb discours président la bi waxul benn yoon que ne élection yi dina am ci date bi loolu xawul la jaaxalam. waaw mooy li may wax rek mooy li wax ne dañ koo may lu parce que nag nit bu jaawalee liñ ko dénk ak lim moom da nga koy war a xamal lim moom ak liñ ak liñ dénk mooy lan lim moom mooy costume boobu muy sol lim moom mooy li nekk ci compte bi lim moom lim moom mooy loolu waaye na kantaan nag moom bëggam moom li nga moom ba pare moomaale loo moomul loolu sénégalais yi ñoo ko ñoo ko war a régler seen bopp waaw parce que euh, dafa ñaaw sax nga añ naay élection te yow waxoo dat ba nga ko aj nangam kon mooy deux ans yi ñu doon ñaan bu ko neexee yóbbu ko fa foofu duñ ko nangoo lépp nag dafay aajow ci sénégalais yi nangu ko ak di bañ nangu. Hmm. Hmm. mais léegi li mu wax ne moo tax mu dàq ko mooy li ñu wax ne dafa am ñaar ci ay juges yu conseil constitutionnel yu ñu jàpp ne wala ñu njort dañ leen a ger ak euh, lu jëm ci tolof am ci wàllum pouvoir entre pouvoir législatif ak pouvoir judiciaire jàpp nga ne loolee lu la lu dégg loolu ci gën a ndaw bu fekkee dañ leen tuumaal kay li ñuy dégg tuumaal loolu ci gën ndaw problème Ousmane Sonko beeg nangam bii nii waaw ba ba ba saaba si fay dogalee ba ni muy accès fii nii lu lu ne wax nañ ko juge mais terewul ba ba jàllale candidature jotee ñoom def nañ seen liggéey def jàllale seen candidature beneen bi ci des mooy euh, ki accusé pourquoi mu accusé ki ñu accusé pourquoi ñu accusé ko waaw sab noonu boo demee fekk sab kilote si sa sa loxoon noonu yow war ngaa de waat ndànk jéem a lijjanti ji sa kilote bi kan moo ko yóbbu ci sa noon mooy lan mooy P PDS. buñ demee ba APR di leen jàppal tànk ci biir assemblée nationale bi pour lan pour loi bi ñuy pour pour pour euh, ñu dàq élection yi wa ilaa ñu lijjanti affaire Karim mag yooyu loolu yaa quelque chose am na loolu laxasu ci biir loo xam ne ñoomi neen la parce que APR fu mu amul intérêt du fa woteel kenn ñeeit fu ñu amul seen intérêt duñu fa woteel kenn min ka ilayka la réeroowul diggante Ablaye Wade la ak Macky Sall amul du jaar seen diggante ci réeroo ma wax la ko fii tey lépp lu ñuy doox ay diilu politique lañ ko bëgg a dox ak nangam seetaanee a leen na leen biir lépp luñ doon wër ci politique perte nañ ko dootuñ ko amati kii moom maanaam maa len ko wax fii tey ngeen déggu bés buñ saaxaan ne ba le vingt cinq février bi élection amut na leen leer ne Macky Sall royaume lay indi ci réew mi te day jàll parce que def naan sénégalais yi li gënoon a métti lu ñu nangulul kenn def na ko toxal naa élection jàmm na ñooy kon su ma jëlaatee deux deux ans yi su ma newaat deux ans la jàmm da daan ñooy te loolu nag tant que ñu ngi koy seetaan fañ jëm billahi wallahi watallahi sénégalais bu ne di nga taxaw rëccu te suñuy doom buñu màggee bañ leen nettaleel histoire bi danañ li ñuy njëkk wax mooy suñu bàyyi ñoo ñàkkoon fayda loolu la ñuy njëkk wax kon nag ñun sénégalais yi nañ bokk si ñu ñàkkul fayda xamal ko ne ko dañ laa dénkoon delloo ñu suñu alal xool kuñ ku ñu wóolu tànn ko voilà mais quant à ay affaire Karim Wade ay nangam Karim Wade luñ ciy xeexal Karim Wade ba nekk Qatar tëdd di lekk ay firuwam ak naan lu sedd ak nangam bu ko Sénégal jaraloon na dagg na dagg bee wàcc Gambie jël oto ñëw buñ koy buñ koy tëj ñoo xam ne tëj nañ ko ndax Sénégal ah mais ki dem tëdd fële nga koy xeexal yow booy xeex doo xeexal ku tëdd ku nekk fii nii ñoom seen parti bi lu muy jëriñ parti boo xam ne nii maanaam bu kii bu bu Karim daaw lañ ko lañ ko éselé woon ñoom bu ñu bëggoon élection lañuy dañuy jiital keneen ku bokkul ak Karim comme ni Sonko def di teg seen hectares waaye bëgguñu élection lii lañ bëggoon parce que 2017 Abdoulaye Wade ba mu ñëwee it daf ne bu kenn ñoomi neen la am na am na lu ñuy am na lu ñuy togg loo xam ne nii ñoo la ko gën a xam sondage yi li mu génne nag premier tour 11 heures damay fay duma leen lii la ñu ne kon du ñoom élection bu fekkee nag njag nañoo toog ci plateau yi di wax lii ñun naan sondage sondage sondage tey kay Macky Sall wane na sondage bu mag bi toxal élection y a quelle raison. ok ñoom nee nañ campagne bu 15 heures jotee mais loolu est-ce que am na it euh, njëriñ élection yi du am ñuy campagne. Ah, bañ am njëriñ bañ am njëriñ conseil constitutionnel dañoo waxagum Macky Sall moom fi mu toll nii euh, nekkatul président actuellement président nguuram jeex na léegi nag li ci des mooy nguuru forcé ci loi ci këyit nguuram jeex na. voilà léegi nag moom li ci des mooy forcé léegi nag nañ dugg campagne yi di wax nañ dëgg parce que pour lan ñu ñuy toog ñuy toog conseil mooy mooy validé validé na waxagut kon ñoom ñun ñëpp moom la ñu déglu ay waxam mais du président Macky Sall. ok waa CEDEAO dem génn nañ bataaxal R Mballo moom nee mu ngi félicité président Macky Sall ci dogal bi nag nga ko jàngate rek pour jeexal xam naa jàpp nga trop. mu ne mi ngi félicité Macky Sall ci dogal bi comme. Euh, waaw lu mu dàq élection rek yooyu moom R Mballo. ah loolu ñoom loolu lañ félicité Macky Sall. no en malo président Guèye bu Guinée ko wax waaye CEDEAO ñoom ne nañ na président ci ni mu gën a gaawee élection CEDEAO ah, CEDEAO seen wax Macky Sall jarut ñu koy jëmale ci Macky Sall parce que ñaar moom na ñoom ñemewuñ Macky Sall wa ilaa it maanaam bëgguñoo jël ay dëgg di ko teg ci kaw Macky Sall ak nguuram gi parce que njëkk nañu fee waxoon affaire Karim Wade bu yàgg te 2017 lañ ko waxoon Macky faale wu leen ñu ne deetawaay ñu ñëw ci affaire présidence bi ñu waxaat ci Macky faale wu ko la tax lijjanti ko nag nañ ko lijjanti ak Macky kantaan nag El Mbaalo li mu wax na a régler réewu réew mi dictature du fi dox te du fi jëlee réew mi ci dictature duñ ko ko duñ ko ko bàyyee ci dictature bu bëggee jàmm jàmm ci réew fees dell jàmm tax ñu fa ñu ko ñun ñëpp pour mu jël réew mi su fekkee bëggee yàlla nee na rëbb fitna mi ngi nelaw rëbb naa ko ko yee bu fekkee dafa pare noonu bisimilah nañ dem li ci kanam raw li gën mais nag quant à ay toxale élection moom kooku moom c'est la première fois président am fitu taxaw nan da koy anoo da koy danoo ci Sénégal. Mhm. li may waxaaf lu waxoon la faraay tëjee rek lu mu ñeme ci suñu kaw rek ñun noo tax mu ñeme ko parce que nag bukki bi yebee waxambaane ca doxin wala nit ki mënoo koo jiital fal ko jox ko say xaalis jox ko say droit jox ko say takk der jox ko say lépp mu retourné jël loolu lépp daloo ko dóoreewaat loolu kon ca yow ma ko fal la. jërëjëf Dof Mame Khalifa ñu ngi lay jë gërëm baax di la sant xam naa ne jàpp nga trop waaye xam dagg nga sa temps pour ñoom ñu ngi lay jaajëfal bu a baax jërëjëf. jërëjëf merci beaucoup maam Marie doofu maam Khalifa Niass la euh, ñu koy jaajëfal en tout cas ci disponibilité parce que moom à chaque fois je pense toujours